république ce que nous de plus sacré mooy état ce que de plus sacré mooy président de la république bi ñu jiite kooku bu wootee c'est parce que il a été formé dans l'espace républicain dans ce que j'appelle l'arc républicain dialogue dafay permettre nga neutraliser violence alors boo waxee nit ñi ñëw leen ñu toog ñu waxtaan mais neen rafet njot dem toog waxtaan kii ne kaay ñu toog waxtaan bëgg na jubo bëgg na wax mais ñun la kaay ñu toog ñu waxtaan nga bañ match boo gis am na arbitre ñaari équipe bu ñuy fubal am na arbitre ñun ñëpp wóolu neen arbitre bi wóolu neen ko bu sifflé bu sifflé ñu taxaw ay mbër bu ñuy bëre da nga war a am ñun fii arbitre bi kan la ñun ñëpp dañuy def politique mais neen nangu ne arbitre bi ñu am Sénégal justice bi la neen nangu ne mooy suñu arbitre mais bu fekkee arrangé arrangé dañu ñu ne justice baaxul ëllëg bu ñu ñëwee au pouvoir non du demee noonu donc ñun dañ jàpp ne ñi nga xamante ni tey ñoo bañ a dem woyu président ci dialogue bi ñooñu c'est des ennemis de la République pour pour waxee noonu parce que dañu war a nangu dem consolider la république parce que dialogue dafa bokk ci république république mooy res publica dialogue daf ci bokk parce que dialogue mooy permettre ñu toog waxtaan mën a mën a trouver des solutions donc ñun nun de amuñu amuñu rafet nañ njort nun désespérons pas jàpp nañ ne ñoom di leen ñëw woy si président de la république jàpp nañ ne ñoom di leen woyu ki nga xamante ni tey moom mooy garde garder les institutions mooy garder charte charte réew mi le gardien de la constitution constitution boobu moo ñu wax ne couvre-feu bu amee bu leen génn constitution moo ne couvre-feu bu kenn génn toog leen seen biir kër yow nga jóg nga ne da bëgg nekk le gardien de la constitution nga ne constitution boobu yaa ko war a garder te moom mu sant la ko nga nga ne yow da nga ko bëgg a garder ba pare nga violer ko. boo ko violer bu la yoon woowee demal wéy ji yoon bu la yoon woowee demal wéy ji loolu kese c'est simple. gëmal yàlla nga dem woy Sénégal yi ñuy xool seen bët demal nga woy ci yoon mais ñu woo la nga bëgg a taal réew mi di woo xale yoo xamante ni li nekk seen xel daanaka da ngay wëlbati seen xel di leen instrumentaliser loolu baaxul ñun am neen yaakaar ne seen xel dina dellusi parce que ki ñu am ku tedd ki muy sëñ Muntaxa gis nga lettre ba mu bind yónnee ko président de la République mooy xutba bi mu def ci ci julli gi ci xutba boobu mais président bu yónnee le bu yónnee leen président de la yónnee na lettre sénégalais bu nekk mooy dialogue leen waxtaan leen même bu ngeen bokkul ay camp waxtaan leen pour mën a trouver ay solution